si may non man du ma wax Amadou Ba Amadou Ba moom na ma baal ah. franchement parler Amadou Ba pour l'instant euh, <laughs> waaw Amadou Ba pour l'instant ah. jàpp moom ci boppam mhm. war na demander sax Macky mu génnee loxoom ci ay affaire am parce que quand même c'est un grand garçon tu veux aller aux, aux compétitions mais affirme-toi déjà il doit commencer par démissionner de la primature ah taxaw en tant que candidat parce qu'il utilise les moyens de l'État est-ce que c'est normal mhm. ah, en tant que premier ministre ngay def ay déplacement en tant que premier mais alors que ko simmi. Mhm. na sol bu bu candidat bi c'est le temps. na sol mbubu candidat bi na ko ñeme na dem ci sénégalais yi waxuñu ngay sol mbubu premier ministre bi jaar ci mbër yeeg jaar ci ay jet setteurs yi no on ne veut pas d'un candidat qui nous parle que de que de jet set et que de lutte mhm. malgré qu'on respecte les lutteurs mais dama ñu sol mbubu candidat na wàcc ci arène bi mhm. jàkkaarloog sénégalais yi naam waa parcelle sax faluñu ko mais quand na am dépassement dem vers le Sénégal dem vers le monde mais en tant que citoyen parce que c'est déloyal nga am un premier ministre qui utilise les moyens de l'État du Sénégal di ci di ci def pré-campagne alors que yeneen candidats yi kenn ku nekk ci sa poche bopp ngay tibb du yoon nañu àbb fit wala nañu xool nu ñu koy loué xaw ma nu muy demee noonu mais nañu affronté les candidats qu'il faut affronter bëgg a nekk président bëgg a Sénégal ak nu mu toll nga am ko àbb parce que yow mënoo nekk fii ne candidat nga Macky Sall moo lay choisiral sa sa pôle parrainage. Mhm. Macky Sall moo lay choisiral sa se lépp. Mhm. moom mooy convoqué mhm. même les réunions la de ce candidat se font au palais de la République. moo lay présenté dignité religieuse mais quand même. yóbbu la Tivaouane ah dina yóbbu Tivaouane teg la présente. mon poulain mon non attends quand même il faut quand même que ñu xam ni. c'est du sérieux en 2024 on laissera pas ce pays se faire voler.